Aïcha euh, mi ngi noonu bienvenue dans ou sur Sunugal 24 comme d'habitude c'est Fou Guéry en Momo Lo kon ñu ngi leen di jaajëfal chers internautes euh, Sunugal 24 yi di leen bégëb di leen jox seen wàccuwaay li leen wax ni waaw ñaari doomu pennanaar yi tey doomu Tiwaawan gi doomu golf bi siyaar naa la. ndeysaan ayca salaamaaleykum sel téléspectateur euh, Sunugal 24 saa su ne tuwaar fakal macha allah comme ni leen koy daal di waxee ah ñoo leen ko diggoon te jox nañ leen ko saa su émission bi nga xamante ne tuwaar fakal macha allah mooy émission bi bëgg. Mhm. muy sama talent ah. sama talent nag yaakaar naa ne kenn dootul déedéet. doon na émission boo xam ne mu ngi toj jaspora bi. macha allah jasaraay yi ak jasalaay yi dëkk bi. Mhm. di lëmbe àdduna bi. waaw la ko wax. ah ci suuf ay. <laughs> foo ne. <laughs> saa ma ci métti mooy. da te da ngaa ñemee ngay def. yaay yow kay <laughs> xam naa ni daal mayoo benn bojo bojo daal li nga xamante ne mooy animateurs yi ndey. en tout cas mhm. daal naa ni ñoo leen ko diggee woon def nañ ko doon na bi nga xam ne macha allah képp koo xam ne am nga talent ci li ngay def mhm. ak mën li ngay def. Mhm. dañ lay indi suñ biir plateau. waaye tey mhm. moomoo su ma la waxoon kan nga may indil comme invité. waaw mais saa su ne rek balaa ma lay wax naan kan naa lay indil comme invité rek. Mhm. dafa am loo xamante ne dafa reetaaloo <laughs> dama ko gis Instagram mooy ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari gel yooyu noonu. waaw man ma xamul xaw ma xaw xaw waa eh, yéen. <laughs> Eh? man la kenn ki da koo mayul mu wax nag. c'est normal kenn ki may ko mu wax. seet xam maa ngi naan lii rek xam naa moom ak fuula rek. seet seet ñànk micro rek lang ni du xam naa sama waa rek xam naa affaire yi métti ko mu ni waa fee. daa a na dëgg eh, may ko mu feeñ yow tamit nag. vraiment ah, vraiment wax dëgg waaw gis nga ay jar defe naa ni kàddu yi am na solo trop nit moom boo nekkee ci boire. Hmm. da koy jar des fois. ki nga nekkal mu lay may ngay wax. dëgg la mais mu koy teg pression loolu baaxul mais moom tey bu ma la waxoon comme indil comme invité. Hmm. kan nga may wax waaw tubaar fa kàlla macha allah saa su ne nee naa nag maa na ko tàmbal te dugg bu jotee dañuy dugal ki nga xamante ne nag mooy ndaanaan waaye nag ñuy dugal koo xamante ne tubaar fa kàlla macha allah du feccikat euh, maanaam safar laa sax du feccikat sax maanaam du tëggkat du bongo. Mhm. Euh, du rappeur. Mhm. Euh, du woykatu mbalax man ki tey def kooku nga xamante mooy ñooy noonu fecckat yow ci rëy gi ci ah, muy Milo mhm. Milo danseur waaw euh, ki ñu invité mooy Milo danseur bu baaxee mën ngaa ñëw doon na koo xam ne macha allah mhm. yow mi am sa son sax boo bëggee mu siiw foog mu challenge ko doon na jeune bi nga xam ni il est connu partout mhm. surtout ci biir banlieue bi doomu Pikine bi di rajaxe dëkk bi ah, mais mais da may jox air force yi balaay nag ci a def waaw sañse moom. jël taal yi ñëwaat mbiram la. waaw maa la ko wax. ñu bala nga nuyoog Sénégal Milo. mais asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp man la Milo danseur waaw di nuyu fu sama doom day di nuyu Momo di rafetlu ci initiative bi ngeen may invité di nuyu Sénégal di nuyu ñëpp di leen nag Milo seen Milo ngi nii. Milo bu Sénégal Milo bu monde Milo international Milo bu ñëpp. mi ngi noonu defe naa ni ñoo ko déggandoo doon na jeune bi nga xam ne il est connu macha allah à travers ci lu muy def doomu banlieusard mi ngi yëngal jasora bi mi ngi yëngal fépp ba tax na yow mi am sa son sax boo ko clipé ba génnee ko doo def lu dul envoyé ko ko bu nag bu ko bu ko challengé macha allah mu wër àdduna moo loo koy wax. Mhm. macha allah rek tubaar fakala macha allah comme ni ñu daal di waxee rek nee la mën a du dalal kenn kenn suñu plateau koo xamante ni ràññewuñ ko ah. dañoo bëgg saa suñu produit muy am loo xamante ni xam rek day am valeur ba tax na tey gisoo ko am valeur lañu indi teg ko si suñu taawul yi pour mën a waxtaan ak moom ah. Milo ñu lay dalal bu baax a baax fi nga xamante mooy suñu gaal 24 ah. mhm. dama lay bàyyi sama doom day rek moom bu ñu duggoon ci biir kii euh, Milo bu ñu duggoon ci biir waxtaan bi. Mm-hmm. te bu ñu Milo fan la démarré carrière am. Mm-hmm. lan nga ñuy wax. waaw Milo fan la démarré carrière am Milo xale bu ndaw la macha allah judd na fu mu war a juddu am na ay waajur yu baax. seet waajuram seetaan nañ ko benn yoon teet nañ ko comprendre nga carrière am ko démarré ma maanaam man euh, genre dama dama juddu fekk samay yaay ak samay mbokk ñoo xam ne dañoo dégg aat. mun naa ne sama yaay sax moom laa fa laa fa laa gën a bëggee fecc parce que moom day euh, maa ngi koy nuyu de passage sama yaay tata Marie Faye moom day jàng la en même temps mais bëgg fecc parce que moom chrétien la te ay jamono daa xam nga chrétien boo nekkee chrétien rek ay jamono dañ lay yóbbu ci ay fête patronat fête patronat gars yi di fecc nii xam nga ay zukkat affaire yooyu noonu man na ma judd sama yaay saa bu doon dem day ànd ak man di ma yóbbaale comprendre nga suñ demee bu toogee di fecc ma taxaw di ko seetaan ma taxaw di seetaan di seetaan léegi nag par la suite man pourquoi pas ma ne man pourquoi pas man lii gars yi def ñu ba ñu di ko def daal moo tax ma jékki-jékki ñu dem benn patronat rek sama yaay ne ma yow moom tey man xool da ngay fecc ma dugg fecc gars yi yuuxu man lii de xam naa lii moom xaw ma la la mais dama koy dama koy def sama loo xamante ne dama koy dem pour bégal nit ñu parce que bégal naa nit ñi tànqale nit ñuy bég pourquoi pas ma continuer ko par la suite ci laa commencé di nii dem ay euh, genre ay comme bu ñuy def ni koñ ba ñu teg benn affaire ma dem fecc jël ko gars yi di kontaan si laa jékki-jékki nag toog di seetaan télé di gis ay fecckat man de man rêvé naa un jour di toog tele bay fecc nit ñi di ma apprécier et tout ci la par la suite laa dem commencé di jàng fecc. waaw macha allah defe naa ni gis nañ loolu mais sa biir famille kon amul kenn amul benn fecckat yow daal yaa judd ne xaaral dem opté fecc bi. waaw man maa judd rek opté fecc mais mooy loolu daal <laughs> xam nga instant nii moom mais yaa ngi koy rajaxe parce ñi gis ay ñoom ficha gaay ay zapping gaay di la dugalaat. macha allah muy dukkat ak fu ne macha allah. te xam <laughs> ko moom leer naa ñi moom ne rek laa doo boo xoolee famille moo tax mu dee dee dee ba mu budee pour cent am na 90 pour cent bu koy bëggee ci biir Sénégal ah ici AR tamit nag laa vraiment mu doon koo xamante ñu ngi la koy encouragé rajo bu baax a baax mais Milo damay daal di ñëw ndax ku wax Milo wax Mahfouss ndax ku xam Milo xam Mahfouss comédie ndax ñoom ñaar seen relation ku la gis-gis la mais dañoo tàmm bu ñu gisee benn jeune talent di di ànd ak benn artiste bu mag. di dem di dem di dem ba commencé am tour dafay jékki-jékki euh, bàyyi artiste bu mag boobu noonu sa relation yaa ak Mahfouss lan la. waaw juste pour pour dire nga rek. genre gis nga tey artistes yi tey mën naa ne tey bu fekkee nekk ndaw yàgg diriger succès du la xaw yóbbu mais boo nekkee ndaw yàgg dirigé boo màggee succès mais xalal moo métti nga nekk ndaw di nekk si ginnaaw succès bu ñëwee rek tam nga beew te ñun yàlla dafa ñu jagal ba ñu nekkee xale dañu yàgg di dirigé temps booy ngay fubali ñu jox milo yaay téye xaalis milo yaay def nii sama relation ak Mahfouz nag jàmm ak salaam kese nag dañu ñëw mu gis ma ma nekk jeune talent mu indi ma ci côté ñuy comment di ànd seq jàmm seq salaam ba léegi nii sax ba tey ba may ñëw dama ko woo ni ko booy dama am émission mun ma naa school boo demee bégal ma gars yi et tout mooy loolu noonu maa ngi moom amul benn différence Mahfouz mooy Milo Milo mooy Mahfouz suñu yaay dañuy déggante damay déggante ak yaayam day déggante ak sama yaay day woo sama yaay may woo yaayam dañuy demalante foo tourné gis Mahfouz gis Milo. non mais foofu laa dag foofu laa lay daggee parce que ay temps. Mm-hmm. muy Sorano muy Grand Théâtre ba ci caméra cachée yu muy joué. Mhm. yaa ngi ci woon mais léegi gisatuñ la fa. non aussi ba léegi maa ngi ci de. non mais yow koy seetaan booy xool caméra cachée. ba léegi maa ngi ci mais mais maanaam xam nga nit ku ne. Mhm. ak wàllam xam nga woon fecckat la te fecc laa opté. te caméra cachée certes doon naa def ay court métrage ak moom mais caméra cachée day jar des fois ak yenn risques yi. ndax ma bokkoon waaye daf maa xooj nii ma ñibbi mooy loolu sama ne ma fuus ah man caméra cachée moom xam naa damay mujj kii rek. bàyyi ba dem prestation ñu ànd ma feccal la àndal la affaire yooyu noonu. mais caméra cachée moom nga baal ma ko waaw mooy parce que. risque la daal. Ah, te la risque bu rëy la. waaw ah. maa ngi koy nuyu de gars yëpp. waaw ayca mi ngi noonu defe naa ni kàddu yi am na solo trop kon suñ déggee ba dégg mooy que ni carrément dara boolewu leen. ndax gars yi ñu ngi doon laam-laame naan kii nu mu demee nii xam nga yu doon. waaw Aïcha defe naa ni loolu am na solo trop di leen fàttali que ni Milo lañ àndal ki nga xam ne tey jii mën nga ko suivre YouTube boo tapee Milo danseur Instagram aussi pareil boo defee Milo danseur rek di ngeen fa gis affaire yi muy def am na solo trop macha allah mais tey bu ñu nee Milo danseur gis nañ ni Milo mi ngi bomb Bilal mi ngi bomb Alex mu ngi bomb daanaka yéen ñetti ñun liñ gën ràññee ci danseur yi ne fii ci Sénégal mhm. Alex Deha dañ koy gis ci ay compétition mhm. jàppal bàyyi mais Milo gisaguñ ci compétition yi mhm. te da lay leer Milo gars yi gënuñ koo teg tànk gënuñu mhm. ko dàqu ñu ko fecc. voilà lan moo mhm. tax. waaw juste man loolu damay dama si assisté leen xam nga nit ki moom lépp lu yàlla def bind sa jëb bi ala kulli aal di si jaar. Mhm. te lu jot rek yomb. te adduna moom tepp tepp moo gën yuréel. nit ki ku ne da ngay def de temps en temps di góor góorgóorlu. sa wërsëg fu mu ti nekk. ala kulli aal di nga ko man commencé naa di fecc nit ñaa ngi may xam nit ñaa may xam di woo fu ne parce que tey booy xool am na ay fecckat yoo xamante ni dafa ñoom featuring Instagram comme xale boobu ñaan Lika international si mi ngi France day toj France ñëpp mhm. ko bëgg dafa ñëw Sénégal pourtant fecckat yi bëri nañ mais ma woo téléphone yaayam woo ma téléphone sama doom ba damaa bëgg ma def yow featuring ñu def vidéo bu toj vidéo boo xam ne waa ci ci presque deux millions yow ak kii waaw presque kenn ko. non non te des fois woykat am na ñoo xam ne sax macha allah. Mhm. amuñu ko. Mhm. nga am vidéo YouTube sa compte di moom un million de vues ay un million cinq cent dem. xam nga loolu moom macha allah. mais ñu ngi ñaan yàlla daal incha allah ñu ngi def lu ñu mën. Mhm. chaque jour ñu ngi entraîné. di yëngal di ko yëngal. yàlla na def allah rabbi ah dañuy dem si compétition yi te incha allah bu jotee rek. di ngeen si gis gaa gaa leen loolu la. te diggante yaa ngi ñoom <laughs> yaa <laughs> non bàyyi li daal jàmm bu xewul laa moom mi ngi fecc rek. waaw di ñaan yàlla gars yi. ñu gën di daan question bu ñu laajte. waaw gars yi ñoo ko waaw. kan moo ci. gën daa ko fecc. gars yi ñoo koy a ngi seetaan a xool nag. am na nga naan Milo daal saa ko feccee dina eh. te dina bëggal xale yi. Eh. ah yow tamit xam nga. Ah, waaw <laughs> macha allah vraiment. <laughs> <laughs> mu doon loo xamante ne vraiment naas na trop ah ñun da saa su ne ni lañ koy bëggee ah, suñu plateau dañuy bëgg mu yëngu ah. Mm. ba tax na duñ si dalal kenn kenn ku ndaanaan nee la moomoo la ak fu gëri ah, ñaari doomu peneenaay si suñu gaal 24 ñaar ñi nga xamante ne ah, teg nañ soog animateurs yi mag yi waaye tamit nag suñu grand frère ngeen jox nañ leen cër bi moom ma sëkk mais ñoo yëngal waaw kay mu ngi noonu mais mi la damay euh, dama mm-hmm. xam mais euh, métier la wa illaa da nga ko booleeg leneen loo xamante ne à part fecc bi da ngay dem si loolu noonu waaw. waaw laaj nga ma question bu grave parce que ñu bëri xamuñ ne. Mhm. milo day jàng. Mhm. te comme ko wax naa la dégg sama yaay professeur français la. Mhm, dëgg la te xam naa da ngay judd. fekk big bi ci ëtt kër. te loolu boo jàngul foog ñu ree la. ñu la milo. Milo la Milo mi ngi nii. Hmm. Milo am na bac am plus 4. Milo def na bac am na bac plus 4. macha allah actuellement maa ngi ISEC maa ngi suivre sama formation en gestion des ressources humaines. macha allah élève laa comme ñëpp. Hmm. jaar naa université am sama licence en lettres modernes. Hmm. en même temps maa ngi nii fecc bi nag genre dama ko def comme du ko ne. passion parce que. passion mooy maanaam looy def mais dama ko bëgg. te bëgg naa tamit. amour par amour laa si duggee. te bëgg naa sedd moo tax gis nga fecc man. mun naa ne jaral na ma jaraluma ndax des fois da gis artistes yi ku ne di soxla sa morom mais Milo du soxor kenn mhm. Milo ku ñëw mhm. boo nekkee sa fecckat bu ñëw boo ñëwee mën nga def ak man fitirim mhm. ñu fecc mu neex Sénégal kontaan man nag tëjul ma porte yi ubbil naa porte yi ñëpp en même damay jàng en même temps damay fecc te ba léegi nii maay jàng maay def sama licence di ñaan yàlla incha allah ren yàlla na ma yàlla may licence yéen ñii tamit li ngeen def yàlla na ko yàlla may di ñaan yàlla ñëpp ñaanal ma Sénégal ñaanal ma sama licence bi may def yàlla may ma ko mhm. incha allah mooy gën di leen bëggal di gën di fecc muy neex di kii en tout cas maa ngi doon daal am naa sama bac plus 4 allah mhm. Euh, fooyo ma sama jàng damay fecc di jàng sama yaay a chaque fois bu may conseil may naan góorgóorlu si jàng bi mhm. te man jàng bi laa gën di ñaan waa Sénégal ñëpp ñëpp ñuy jàng ñuy def bexem yàlla na yàlla may bexem ñuy def bac yàlla na yàlla may bac mhm. certificat CFEE ñu koy def yàlla na leen yàlla may mhm. di wax wan loof vive Sénégal maa ngi vraiment ndeysaan naa ni loolu wane na ni macha allah avant tout les études parce que maanaam lépp ci kaw jàng ci kaw jàng la macha allah mais ci biir jàng boobu yow Milo Mm-hmm. est-ce que du lay handicapé benn côté benn côté parce que des nga war dem jàngi mook fecc beeg yooyu noonu des ñu gis mu mu kii mm-hmm. Milo Sorano war yooyu noonu. waaw parce que parce que tamit nit ki tamit lépp loo gis rek euh, début débutement bi la quoi. Mm-hmm. na tey mun naa ne showbiz bi dugg naa ci yàgg na yàggul. mais comme que dem naa nit ki boo demee bay def bac ba am bac yaakaar naa beneen niveau d'intellectuel yi di nga ko xaw a am. à travers connaissance yi ngay am ak tout. te a scinder entre études. Euh, jàng ak aar. parce que étude ak aar mun dem parce que des fois da ngay gis école ñoo xam ne dañuy wax aar art sport. comprendre nga. ak étude ak affaire yooyu noonu. mais man mii mag na xam nga war naa mën a mën a boole lépp tey ma demee Sorano. su ma ñëwee lu mu guddi guddi damay tiim sama kay jàng sama leçon bu ma xëy dem dem devoir. Mm-hmm. te yàlla mi ngi ma siy jàppale. kon man du ma bàyyi sama jàng benn yoon naan damay dem di fecc wala affaire yooyu noonu. heure examen bu jëlee nag. Mm-hmm. damay teg fee fecc bi dem defee examen bu mu neex. Mm-hmm. ndax samay waajur loolu lañ ma sant loolu lañ ma digal. fecc bi nag amour laa ci duggee parce que tamit boo amee dara. ñi di la ci di la ci bëggee yaakaar naa doo ko mën a bàyyi di def sa kulli aal boo amee temps bu ndaw dem def sa vidéo ñëw bëggal ci gars après wan loo nekkaat si jàng bi buñ nee Milo mm-hmm. et les artistes parce que fi ñu toll nii mën nañoo wax ni artistes yu mag yëpp mm-hmm. tey bokk na ci jeune bi nga xam ni ku def son envoyé ko ko mm-hmm. bàyyi ñu Sidi Diop bàyyi ñoom Bass Thioung bàyyi ñu kenn ba ci rappeurs yeeg ñëpp gis nañ ko clip bu war bu nekk ku ne clip bu nekk gis nañ la ci yàgg sa sa relation ak artistes yi. waaw sama relation ak artistes yi jàmm salaam. Hmm. parce que jàpp naa nit ki moom boo. man foo ma gis sama bëñ ngay njëkk a gis. Hmm. damay ree ñàkk ma fulla nag. mais nit ku ne dans la vie da ngay oyof nga modeste. Hmm. boo modestee góoma di nga am noonu ñëpp lay bëgg. xam nga tey fu da nga modeste. yàlla yàlla yow tamit boo moo da nga modeste. borom caméraman bi tey tamit dafa modeste. moo tax mu ciy caméra yi. comme naan nga mais dama nit ki nag boo modestee ñëpp lay bëgg. te man sama diggante artiste yi jàmm ak man damay feccal titi. concert feccal naa Titi. feccal naa El Kay damay feccal Bastour feccal Abiba. feccal ay wan feccal El Dias. xam lu ma ko may. moo des ak sama diggante ñoom moo tax ñoom ñu bëgg ma. ba choisir may ñëw di leen feccal. Milo artiste la du du boo xam ne day basé su benn nit. Hmm. basé su maxtu wala kii non Milo artiste ñëpp la. artiste boo xam ne day fecc. tey boo ko soxlaa si clip. wax loolu li ko war a wax loo boo ko wéyoo mu fecc lu neex gars yi mm-hmm. mu jàpp day siy jàpp ci partage bi jàpp ci lépp parce que àdduna lépp jàppalante la mënu ma ñëw si kilif fecc pare ma lu jàppal di si def ay sinap di ko envoyé gars yi gars yi di si partagé mm-hmm. parce que loolooy àdduna loolooy wan tamit sama complicité ak artiste parce que ñoo xam ne man tamit damay fecc pare mais en même temps dama leen di jàppale ndeysaan Bastoun ba muy commencé kon bi mm-hmm. dañoo daje benn anniversaire sama anniversaire daal ma ne bu man ma Mahfouz ñu ànd sax. mu commencé kon mu ñëw kon yees génnagul sax. mu tegal ñu ko ma Mahfouz mu ne bàyyi lii dama ko bëgg a def son. mun ma yow yaa ma koy fecc parce que bu ñëwoon ànd ak benn waay buy bongo. may fecc mun ma yow mun nga fecc da affaire yooyu ma ne ko man di gis nga damay taxale mun ma sama clip bi yow laa ciy woo. Hmm. noonu la ñu xamante di déggante. ba yàlla def ma ak moom instant yi nii mooy loolu. des fois damay ànd ak moom di fecc ak concert ak Titi. Hmm. Hmm. mooy loolu daal instant yi daal diversité daal. ok daanaka daal mën nañu wax ni Milo international moom moo defe naa dégg nga yooyu. macha saa su li may daal wax rek gis nga nit ah bu nekkee ci dara da nga am joma vraiment da nga ciy modeste tamit euh, parce que yëg-yëg moo ko may wala benn daf ko tënk milo milo àdduna la milo milo ici et la kon ça veut dire que ko woo mu fecc la si climat te macha mën na li def trop trop ndax boo xoolee Sénégal instant bi kenn dootu ko présenté ah, fi réew mi toll. parce yow xoolal da ngay nag da gis benn. Mhm. mu challenge benn son. Mhm. yàlla xam na ko mi dama xool SAT ma gisaat beneen tubaab di ko mhm. jéem a toppandoo ci son boobu. macha allah loolu loolu international mënul weesu loolu ailleurs ñu ngi koy def di ko di la si toppandawaat pour man loolu sant yàlla quoi sant yàlla mënul weesu loolu te loolu tamit xam nga dañu siy félicité bu baax a baax a baax a baax a baax vraiment man nag damay daal di ñëw li nga xamante mooy sama dernière question ah ci Milo mooy Milo lan mooy ay projet ak fan la bëgg a àgg si bi lan mooy objectif am euh, si fecc bi en fait man jamono ji instant yi bëgg naa bëgg naa def lu bëri ci danse. Mhm. parce que des fois da gis euh, fecc. Mhm. genre booy xool xam nga man damay fecc genre fecc yëpp. Mhm. damay fecc afro mbalax des fois hip hop dama koy fecc. te bëgg naa léegi commencé ay yoo xamante projet yoo xamante ne incha allah rabbi. du ma ko mun naa ko bañ a wax fii. mais Milo daal mi ngi waajal loo xamante ne incha allah rabbi ñu koy bëggee. ak même ñu ko dul bëggee sax. milieu mi ngi waajal lu garaaw ci yéen te bëgg naa incha allah ci danse Sénégal. Mm-hmm. parce que du la ko nëbb parce que fecc Sénégal. Mm-hmm. dañ ko valoriser wu. dëgg la surtout parce que mm-hmm. da ngay ñëw artiste des fois clip nii mu woo nii. la ah bëgg nga jàpp ci affaire yi nangam nangam. Mhm. des fois mu wol tey parce que fecc fii nii Sénégal macha allah fii fecckat yi mooy loolu. ndaxte am na ñoo xamante tey. Mhm. mun naa ne fecc am na ñoo xam ne amuñu ci kër ci fecc am na ñoo xam dañu ci nekk nii ndax amoo. ay Pa Moussa ñoo fi am ay kër ay Amady Badiane ak ñoo soor mhm. mais ñun ñuy seen talaay. foog ñu jéem a def moderniser loo xamante ni incha allah rabi. ku gis fecckat da nga koy naaw parce que des fois boo gisee fecckat la ñii daal ay dof la dañuy kii nangam. mais boo nekkee nag koo xamante ne nii macha allah da nga intellectuel am connaissance. Mm-hmm. di nga xam fooy dérouler sa carrière ak mm-hmm. nooy jaar ba kii. mais nag maa ngi ñaan fecckat yëpp. Mm-hmm. nañu nañu booloo nekk benn. te man nag incha allah maa ngi waajal lu grand projet yoo xamante ne nii. genre mun naa ne national la international parce que des fois ay vidéo tutoriel genre nga gis benn paa sénégalais ay nii xam nga di ko jàngal di wan gars paa bi na la koy defee boo teew tey fu xam nga des fois doo mun nii lay wan paa bi ñu koy wan gars yi nga tey mun nga saraan télé benn million ñëw rek commencé naan nii naan nii xam nga doo xam ni nga koy defee yow nga téye ba naan nii jàngal paa bi noo koy tegee. Mhm. noo koy commencé booy monter nangam nangam. loolu yëpp incha allah maa ngi koy waaye Sénégalais ak leneen ak leneen xam nga loolu tamit. tubaab yi tamit dañ ciy gis seen bopp mhm. tutoré tubaab yi dañ ciy gis seen bopp parce que des damay def ay vidéo ay tubaab yu bëri di kii di ma woo fu ne di ma présenté naan la nga ñëw France mhm. man leen lu jot yomb rek incha mais loolu daal laay waaye que yaa ngi ciy waaj ay genre école école école de danse fii du yi bëriwul fii ay ay Pa Moussa Sonko école du daw. Mm-hmm. ay bac à part ça mooy loolu mais bëgg naa man. Mm-hmm. sama réew bëgg naa ubbi école de Sénégal. Mm-hmm. di jàngal xale yi parce que ñëpp loolu lañ may wax. di jàngal xale yi mais nag vidéo yooyu moo ma gën a ñor. ndax xam ne boo ko defee incha allah rabbi ñi dina jóge ba Siin. di fi ñëw pour nga koy jàngal paay parce que des fois xam nga musique sénégalaise dafa neex. te musique sénégalaise musique africaine la. dañ koy béggee fu ne à travers le monde. di wax gars yi incha allah maay waaj lu garaaw. bëgg naa tamit bind ay projet pourquoi pas ay film danse. ñëw fii nii. xam nga sunu gaal 24. Ah, waaw loolu la daal. kër gi sa kër la kër gi kër la mais gis nañ tamit macha allah pour ñu tënk affaire yi rek gis nañ yenn danseurs yi parce que yow ci game bi nga ne. peut-être ni nga wàccee sa bopp bañ ne milo jàppal bàyyi gis nañ ñoo xam ni dañoo rëy. Hmm. pour jàngal nit ga problème la am na ñoo xam ni pour nga woo leen sax. Hmm. ñu naan dañ lay jël problème la. yooyu noonu yow lan nga wax sa moroomu. waaw man nag lu may ñaan sénégalais yi lu may ñaan danseurs yi mooy ngeen wàccee seen bopp. Mhm. parce que fii jaru jaru jaru fee jaay. Mhm. tey boo toogoon sa kër kenn du la xam. tey ku nit ku ne am na talent. Mhm. tey Fou da nga am talent. moomoo da am talent macha allah kii di caméra daa am talent. mais sa talent nag. bu ko jaay parce que da nga koy exposé nit ñi gis la bëgg la ci. Hmm. tey bu fekkee da ngay jaay ne kaw bu neexoon góor wàcc. kon maa ngi ñaan ñëpp nañu ma des. tey bala fu wooyee ne la jàngal ma. Hmm. bàyyi lépp nga ñëw jàngat ko parce que balaa ngay débuté. Hmm. da ngaa dem jàngal la. maa ngi ñaan yàlla fecckat yëpp. loolu sax fecckat ku yëngu ci aar. ma desal. loo mun sa moroom mënu ko jàngal ko te yàlla kese tax. loolu la macha allah defe naa ni leeral na ko vraiment doon na ko xam ni tey jii téye na banlieue bi doomu Pikine bi macha allah. gis nañ ko mi ngi def ay affaires yu am solo. Mhm. macha allah dama leen koy waxaat chaque jour rek mën nga dugg YouTube tapé Milo danseur ainsi Instagram aussi ndax mi ngi fay bomb macha allah ak TikTok. Mhm. Milo danseur boo fa duggee di ko fa gis macha allah eh, lan ngay joxe sa kàddu gu mujj. waaw surtout rek di jox sénégalais di leen jox dig daje leen nañu wàcc incha allah Milo mi ngi jàppale ma ñaanal ma mm-hmm. ma am dara di nuyu nag suñu waa koñ Pikine ba ma jógee di nuyu sama yaay tata ndey nee la mm-hmm. di nuyu ay samay rakk ay ñoom Amina ak ñoom war nañu wax ku lay solo laal parce que Milo wóoree sax dañuy mujj di miir di daal ay ko jox yëre yi Mara Pro moom ko ab yee Mara Pro moom ab yëre yi mais juste nag di nuyu tam sama waa koñ ñoom liilu cag-cag di nuyu ñoom Demba Jamaa ñoom Baye Sall waa Pikine ñëpp cité bourse ñëpp maa ngi ak sama non astafurlah gel de waaye nii ñëpp daal di nuyu sama fans yi di sama soppe di nuyu sama xarit bàcc di nuyu samay mag Clémence sama yaay Tata Mari Fay di nuyu samay ñoom maam mhm. waa Risatol tamit maa ngi di nuyu waa Risatol nekkoon naa fa mooy loolu du nuyu ñëpp. di nuyu tamit waa Sunugal 24 di leen ñaan nag incha allah. bientôt télé bi dina ñëw incha allah. yàlla bu defee jàmm télé bi dina ñëw macha bu vous êtes suivi. di leen ñaan jàmm di nuyu seen directeur. di nuyu ñaan ñi. ah di tamit cameraman di nuyu tamit bee taxaw nag. maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu waa Sénégal. incha allah rabbi télé bi. bientôt incha allah Sunugal 24 télé bu nar a neex lay doon. Sunugal 24 kii bi. dinañu wax rek xam nga.

ñëw wuy suñu xam nga mm-hmm. doon koo xam ni macha allah il est connu partout dans le monde li ma la koy waxee rek aussi tamit dafa modeste neen ko gisee nii la mel mm-hmm. di la ñaanal yaa xam loo bëgg sa carrière yàlla na la yàlla defal vraiment doon te ni nga mel nii continuer ko mm-hmm. waaw mooy loolu di la jaajëfal bu baax di jégalu tamit ci déplacement bi ak dérangement bi di la bëggee bu baax moom moo di jaajëfal la caméraman Kora euh, dofu caméraman nga xam ni comme filmé ndeysaan sa qualité image yàqu. waaw sa qualité image yàqu ko <laughs> doomu macha allah teewaawoon gi mi ngi bomb dëkk bi. ndeysaan moom kenn mi ngi noonu mi ngi noonu ay am trois caméra lay teg di filmer di jël fii di jël fii xam nga ni loolu. voilà large place serré ak ak <laughs> di jaajëfal euh, Tapha Tine euh, borom Colobane ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di leen jox di daje ba beneen yoon allah.